daleen ak jàmm dox ñaxtu bu étudiants yi Sénégal yi ak jox drapeau bu équipe nationale bu Sénégal mooy li gën a fës ci xëtu yéenekaay yi génn tey ci aljuma ji ñu doore ko ak suñu jant réew di la soleil nag bi dikk ak ñun ci le président de la république Macky Sall bi doon jox dem raay réew mi nag gaynde yi moom nag woon na leen ñu dem ba jeex sax la bind ci xëtam mu njëkk moom soleil national nag di moo d'ordre bu président de la république ngir rek sàkku ci gaynde yi nag ñu def lépp lu ñu mën foofu ca Russie bu ñu fa demee nag dem ba jeex aucune limite dem leen ba jeex amul fenn fu ma leen yemale moom la témoin quotidien yokk ci nag daa di jël ay kàddub nag président Macky Sall moom nag daa na rek ñaax bu baax suñu yi nag ci kanamu entraîneur bi di Aliou Cissé ak ñi jiite football fii ci Sénégal nag suñu sukkandiko ci kaay bi Macky Sall sàkku na ci gaynde yi nag ñu daal di dugg ci compétition bi nag ak fulla ak jom gu mat sëkk nag on nous tue on ne nous pas dañ ñuy rey rek waaye kenn duñu toroxal nag libération moo ko bind ci xëtam Sénégal nga xamante ni le quotidien itamit moom la fësal ci xëtam bu njëkk la devise devise bu armée nationale moom la Macky Sall tànn rek ngir rek ñaax naataangoo yi Cheikhou Kouyaté yi l'observateur yéeni kaay daan ne Macky dafa rek daa door xeex gi foofu ca Russie nag nationale bu football daa door mission am nag ci coupe du monde bi ak ginnaaw ba mu jotee raag réew bi nag ci loxoy njiitu réew Macky Sall nag yéeni bi moo ko xamle teg si di yokk nag moom Macky Sall nag dina jël nag fukki fan ak ñaari congé nag ngir gunge équipe finale foofu ca coupe du monde ba nag ca diwaan bu Russie nag loolu tamit le témoin yéen a kaay xëy na xibaar ñu ko ci ndorteel nag Sud Quotidien nee na moom Macky Sall wax na gaynde ñu dem bañ a am benn complexe bañ a tiit bañ ragal tamit te sàkku na tamit ñu dem ci nu mu gën a sore ci boobule compétition nag waaye nag andi fu fulla gu mat sëkk nag nit ngir rekk mën a sàmm image yu réew mi nag Vox Populi moom it daal dik ak ñun ci discours de guerrier bu Macky Sall def nag ngir rek ñaax suñu gaynde yi nag ma tek joxe drapeau yi dox ñaxtu marche nationale bi nga xamante ni étudiant yi sénégalais yi amaloon nañ ko nag ngir rek ñaawlu faatup kenn ci seeni naataango ginnaaw ay xeexoo yu doxoon diggante étudiant yi université Gaston Berger ak force de l'ordre yi nag déferlante de colère moom la enquête fësal ci xëtam mu njëkk yéenekaay bi ne nag ay junni junni étudiant ñoo dox ñaxtu démb nag alxames ngir rek sàkku bépp ministre rek bi nga xamante ni sa loxo dugg na ci faatub seen naataango bi di Mouhamadou Fallou Sène Saint-Louis ba Ziguinchor jaar Dakar Thiès ba Diourbel nag benn moo amoon mooy justice sanction maanaam àtte yoon tamit daal di tekk ay daan nag déferlante estudiantine dans les rues du pays mbeddu réew mi yëpp nag feesoon dell ay étudiants moom la ñu mën a jàng ci page bu njëkk bu Vox Populi yéenekaay bi daal di bokk xët enquête quotidien étudiants yi nag dañuy sàkku ba tey nag demop maritaw ñaan ak ñoñam nag sàkku tamit ñu wàññi bu baax njëgu ticket restaurant yi waaye tamit yokkal leen seeni bourse yéenekaay bi moo ñu ko xamal maritaw ñaan jëwriñ bi ñu dénk njàng mu kawe mi Amadou Ba jëwriñ bi ñu dénk gafaka réew mi Aly Ngouille Ndiaye bi ñu dénk biir réew mi ñoom ñëpp nag dañoo bëgg rek njiitu réew mi Macky Sall dàkk leen nag tribune yéen moo ko xam la impossible revendication waaye nag la cloche yéen yi loolu ñuy sàkku nag munta nekk nag ndax nag ci jamono yi nga xamante ni dañuy du mës a jël rek di dàkk ñetti ministères yi nga xamante ni am nañ solo lool ci réew mi nag lu moom tax yéen kaay bi ne ñoom ñee étudiants yi li ñuy sàkku bee boo ñu toog rek xam ni duñu ko mën a am nag ci jamono yooyu nag Sud Quotidien ne étudiants yi nag ñoom ña nga taxaw fa ñu taxawoon ci ndorteel la ba léegi nag wal fajiri yéenekaay moom it loolee la xëy daal fësal si mu njëkk daane rek marche bi nag tax na ba ne dinañ amal aw grève illimité ci université yu publique yu réew mi yëpp loola waral nag le quotidien daal di samp ab laaj nag daan ne kan la ñuy dooraat service administratif ak sociaux ca université Gaston Berger nag ginnaaw ba xeexoo yi doxoon foofu nag taxoon ba faalu seen ñàkkoon ci bakkanam nag l'observateur moom daa jël lekk marto mu gën a daa ca pont bi nag nag université Gaston Berger nag bu Saint-Louis ay atan mi ngi nii nag muy am ay jafe-jafe ak crise yi nga xamante ni tax na nag ba nekkinu étudiants yi foofu nag baaxul lool indi nag ay jafe-jafe tax ba xarañte ñu doon wax nag ci université Gaston Berger day gën di wàññeeku bés bu jot kon mbokk yi lii mooy li gën a fas ci ëttu yéenekaay yi yendu leen ak jàmm